ca sama gaay le a nuun final loxo boobu Rebeu dem na kë Ngak dem na Pandiané sama gaay final raw gadoo gi noonu waaw raw gadi i ñoo bëre di daan seen morom di daan seen di daanante ba egg si final ñoom ñaar fi des kon il boobu Félire fii ci kaw waaw waaw waaw waaw ma jib ma jib ndig ma jib boob ndig maama ma jib ndig maama ma jib ndig maama waaw waaw ay bi ko waaw bi final ay bi final majib majib majib majib ma mama.